jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net yaakaar naa ne ñu ngi gërëm mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan télé boobu di leeral point net leeral TV waaye mbokk yi rang bi ngeen gis ni moom mooy rang bi nga xam ne moom mooy taalibe yi moom mooy jàmbaar yi nga xam si ne ji jii ñoom ñooy rang pour ziyaare ji eh, bërëb bu mag bi di ziyaare ji seexu Xadim Sëriñ Bamba dañ fa fekk ay nit gars yi ñoo ngi leen nuyu. waaleykum naka nga ko dundee màggal. guddi bi xanaa sant seen Tuubaa rek. foo jógee. Toubacouta. Toubacouta waaw. jërëjëf. merci beaucoup sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñu waaw. jërëjëf sëñ bi ñu ngi delloo ziar. man maa ngi jógee Tëngéej. Tëngéej waaw. noo gisee tey màggal moom neex na moom. ñoo ngi lay waaw ñu ngi lay dellu ziar. foo jógee. maa ngi jógee Saly. naka foofu. mu foofu rek. jërëjëf. ayca euh, ñu xoolaat ñeneen ñoo xam ni sëriñ bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci màggal gi sëñ bi foo jógee. man Diourbel laa jóge noo noo dundee màggal gi tey ak rang bi nga xam ni moom ngeen jëm ci bërëbu sëñ bu mag. waa rek sant yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba rek. màggal gi neex na xumb na. may ñu xéewal may senegal jàmm Sénégal yëpp màggal gi jàmm la fa indi ak xéewal. noo dundee màggal gi. sant Serigne Touba rek. waaw kontaan de bu baax a baax. laa jógee. Bambey. waaw naka nga dundee rek ak neex. jërëjëf jërëjëf kon biram ñu jëlaat kenn papa ñoo ngi lay nuyu. papa foo ah, ñoo ngi waaw ñu ngi laay fay. foo jugee. Koungheul laa jógee ko. naka nga tundee màggal gi. màggal gi daal ala daw mi na. waaw moom kay ñaanal yàlla Serigne Touba rek lii mu jaayanteeg yàlla daal yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem rek ci barke Serigne Fall kontaan nañ lool nag. jërëjëf noonu lay demee noonu lay demee biram ñu xool mbokki taalibe yi xool mbokki Baye Fall yi nga xam ne tey dañoo ñëw pour dund li nga xam ci ni moom mooy màggal gi waaye tamit di ñaan lu fi waaye ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nangu ci barki borom màggal gi ñoo ngi lay nuyu sëñ bi sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñoo lay fay foo jugee. Touba Toul. waaw waaw. naka nga dundee màggal gi. màggal gi neex rek gis nañ suñ bopp bu baax. gis nga seen bopp gis nañ suñu bopp bu baax parce que sëñ bi moo ko waral quoi. rang bi ngay rang fan la jëm. rang bi may rang xabru sëñ Touba rek. bërëb bu mag. bërëb bu mag bi. tax ñu rang waaw ah, man maa ngi jóge euh, Saalum. Saalum waaw Koungheul. Koungheul waaw naka nga dundee màggal. wax dëgg yàlla gis neen suñu bopp daal gis neen suñu bopp bu baax a baax. waaw di ñaan rek Paar jërëjëf jërëjëf. sang yi nuyu. ñoo ngi fay foo jugee. maa ngi jugee Cambérène. Cambérène. naka nga dundee màggal gi. màggal gi neex na de. wax dëgg yàlla moom nee na wante Alioune Sall gis naa ko fi sànq de. 400000 waxu si de voilà. ah 400000. ñoo nañ wax ci màggal gi rek. non màggal ndax borom Tuubaa moo ñu woon. neex na de ah. waaw jërëjëf loolu am na solo a ah, ñii ñëpp ay jàmbaar yeen yoo xam si ne tey jii borom Touba moo leen di ñor sëñ bi maa ngi lay nuyu. foo jógee man Saloum guy ma di bëri. naka nga dundee Màggal. waaye xanaa te kontaan rek kontaan rek kontaan rek. Ah. kanam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar. Baye Fall noo dundee màggal gi. waaw ñu si kawam ne di sant borom bi rek. ak sëñ Touba. jërëjëf kontaan rek. jërëjëf gars yi kontaan ñii ñëpp. ñooy rang bi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci bërëb bu mag bi mooy rang bi nga xam ne moom moo jëm xabu sëriñ Bamba muy borom màggal gi sëriñ bi maa ngi lay nuyu. jaajëf jaajëf foo jóge ñun ñoo ngi jóge tuubaa Touba ñoom Touba lañ jóge foo jóge sëñ bi. Touba Touba sëñ bi foo jóge. Bismillah. jërëjëf papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. noo dundee màggal gi. màggal gi bu dul neex ak sant borom bi bu wér di koy ñaanal mu gudd fan bu wér a wér. yàlla bàyyi ko fi ci kanam kanam ak loo loo loolu am na solo sëñ bi na def. waaw maa ngi sant rek. dafa mel ne da nga bëgg sànni ay kaddu ci màggal gi. waaw dafa am dama ciy bëgg a sànni kaddu. di leen félicité di leen gërëm di leen sante bu baax. di naan lépp lii liggéey sëñ Tuuba ak doole Cheikh Ibra Fall doole sëñ Fallu di sante Baye Karim bu baax di leen sant bu baax. kaddu yi ba ngeen di jóge ñëw fii yal na sëñ Tuuba fay leen. jërëjëf seen liggéey rafet na. jërëjëf loolu liggéeyu Leral TV la sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay dundee màggal ñun nag léegi di alhamdulilah sant yàlla rek yokk sant rek. dafa mel ne tey am bég nga. trop trop li Serigne Bamba woote bég nga. bég naa ci trop trop trop. waaw jërëjëf naa ci jërëjëf euh, noonu lay demee ñuy xoolaat yeneen mbokki taaliba yoo xam ne ñoom ñoo ngi ci biir rang bi salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu. sëñ bi maa ngi lay nuyu. jégal ah, kooku dañ ko jéggal sëñ bi maa ngi lay nuyu. Euh, noo dundee màggal bi waaw magal xanaa bu neex rek <laughs> waaw. neex na trop neex na trop. barke Serigne Touba. alhamdulilah. yaa ngi jëm ci bërëbu Serigne Touba. waaw waaw eh. waaw. Eh, noo gisee rang bi maa méttiwul. non non non méttiwul méttiwul. xanaa sëñ bi rang bi maa méttiwul. oui non non métti mais bu méttee rek. jëm nga sëñ bi sëñ Touba mënta yombal dara boo bëggee dara ci moom mënta yomb parce que da koo jaayante ba bésam tey jii di ci màggal yàlla sunu borom mënta yomb kon rang bu yomb rek du ñu am lu ñu bëgg sëñ bi. kon bi jaayante ko mu métti jaayante boo ko jaayantewul doo ko am doo am sëñ bi daa jaayante lii lépp ba mu am sëñ bi daa jar loolu jar na jar jaayante bi ngeen jaayante ci rang waaw jar na yëpp maa ngi nii kontaan rek lébu jàmm sëñ bi jaayante bi ngeen jaayante fii ba si fii ngir dugg ci bërëbu sëñ mat bi sëñ Touba moo ko jaral eh. moo ko jaral de sëñ Touba moo ko jaral ndeysaan ma ndeysaan bu leen bu leen buur euh, bu bu bu leen dugg ci rang bi yéen ñi ci bokkul waaw léegi foog ngeen sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi jaayante bi ngeen jaayante pour ziyaar bërëb bu sëñ bu mag. waaw wallaay loolu moo ñu fi indi. ziyaar sëñ Touba rek moo ñu ko jaral. wala kontaan nañ lool si bés bi sëñ bi màggal ak jaayante ak rang bi. waaw kontaan rek kontaan bu baax si lu ñu teew si bisu Serigne Touba bi kontaan nañ lu bare. kilifa gi maa ngi lay nuyu. <laughs> moom xam naa ne américain la. sëñ bi maa ngi lay nuyu. yaa fay bu baax. Eh, jaayante bi rang bi nu mu demee noonu. waaw métti na trop waaw sant yàlla rek sëñ bi moom jar na ko moom jar na lu ko ëpp. yaa ma gën a xam. sëñ bi. jaayante bi waaw métti rek mais nag sëñ bi amul woon lu yomb. amul woon lu yomb moo tax ñun taalibe duñ ko nangu mukk dañ koy jaayante. jërëjëf taalibe yaay jaayante noonu. taalibe yaay jaayante lool sëñ bi maa ngi leen nuyu rang bi metti na. sant yàlla bu baax sëñ Ahmadou jaar na ko. jaar na ko lu rang bi metti na. metti na trop waaye teewul xaati woo leen xaati bokku ji. Eh. xaati bokku ji. jërëjëf. jërëjëf bil Mustafa sindi di yàllaawu wa bi xalilika Ibrahima yàllaawu yàllaahu bil Mustafa sindi moo saa salin wa bi وبشعيب واسماعيل الله علي صلي وسلم دائما ابدا ومن خفه لم يدني الله sëñ bi jërëjëf sëñ Touba jarul lekk maam Cheikh Ibra Touba ku fi nekk rangi seen dàll yi ngeen di sol di leen ko summi ndax loolu Baye Moussa ko na di wax naan yéen ba nu yoroon xutba ya ak lab daal ya maa ko fob raw gaaya da di wéy ti taawatul balaaya so lahu waalim loom si laaya sëriñ si naa xëy nañu bambay kaamil mbër yëpp soq nañu bambay sëñ Touba kenn du moom yàlla na fi yàlla yàggal sëñ Muntaxa ak sëñ Mudu Mbenn liggéey bii ngeen defi bu déwénee yàlla na fi dajewaat rang gi yàlla na fi yàgg di siyaare sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibra jërë ngeen jëf yàlla na jërëjëf jërëjëf loolu addiya yella boo xam si ni dañ koo jox addiya la boo xam ne dañ koo jox mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñun la ak yéen yéen ngi toog di seetaan leeral TV leeral point ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax fii ci tubaa rang bi nga xam si ni moom moo jóge fii taalibe yi di ko jaayante pour jëm ci bu sëñ bu mag ndax sëñ tubaa dafa jaayante ba tey ñu am lii kon ñun buñ ko buñ bëggee jot ci moom rek foog ñu jaayante sëñ bi maa ngi way maa ngi lay fay ku baax di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba waa lii nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax na sëñ bi moom ay dafa liggéey doot ñu ko wax ñun leneen la ñuy wax lii nag baa yàlla nañ ko yàgg a teewe ay déwéni déwén barki borom Touba lii moom baa ca kaw ca kanam rek. jërëjëf tamit yàgg leen tëwër Baay Faal. jaayëf jërëjëf jërëjëf. noonu la ñuy fekkee mbokku taalibe yi gis ngeen rang bi nga xam ne moom moo jëm ci bërëbu sëñ bu mag bi gis nga taalibe ni ñuy jaayantee tàngoor wi jaayante bi métti na. Touba rek wallaay Serigne moo jar lii. Serigne Bamba. waaw borom daaru rek. borom daaru rek. waaw kese. Serigne Bamba ko jar barki Serigne Touba. Serigne Bamba rek la ñu am. moom kese dong rek amul leneen. loolu rek la ñuy ñaan yàlla ñu ko. bilaay ndeysaan déggal mbokku taalibe yi ñii boo jaayantewul doo ko am. sëñ baa ñu woo suñ amul paas dañuy mene baru yenn ay soo ciment ba doog. nga ne booy amul fii dañuy mene baru. billaahi wallaahi sëriñ bi kum yoo fii da ngay ñëw barke suñ Tuubaa Mbàkke kum woowoon nga toog gàlle xaar ñun sëñ baa ñu woo dañuy ñëw fii lu neex. parce que kon yow sëñ baa woo moo tax nga ñëw. waaw sëñ baa ma woo su ma wootoon maa ngi gàlle daaj amul ragal barke suñ Tuubaa Mbàkke ci kaw. loolu am na solo loolu am na solo. gis nga rang baa ngi nii mbokki baay baay faal yaa ngi nii taalibe yaa ngi nii fii la ñuy jaayantee pour jëm ci bërëbu sëñ bu mag bi sëñ bi da ngaa sonn dafa mel ne fan nga dafa sori dafa sori sori na si kaw laa rangee eh. waaw mais nag sëñ bi jar na ko waaw jaayante la rek eh. papa jaayante ak dugg ci bërëbu sëñ bu mag bi waaw loolu dong ñu fi indi doxal fu ñu jógee ko ne moom ak a sori eh. waaw réew a réew lañ ko foo jógee Koungheul dëkk bu ñu wax Koungheul waaw. mbaa paas yi metti méttiwul. non non moto laa indi. ñun ak man leen waaw. ñaata nga sol bi ngay ñëw. ñun 5000 lañ sol. ale ale bi. retour bi tamit xam naa 5000 lay doon. jërëjëf. waaw. gis nga eh, noonu lay demee noonu lay demee gis nga mbokki Baye Fall yaa ngi nii ñii ñooy jaayante ngir dugg ci bu sëñ bu mag bi ñii ñooy jaayante ndax Serigne Touba sëñ bi maa ngi lay nuyu. ah sa sëñ Bamba bi rafet na. waaw rafet na jaayante bi ngeen di jaayante pour dugg ci bu sëñ bu mag bi. waaw loolu la ñuy def nii xam nga sëñ Touba moom amul lu mu jarut sëñ Touba jar na lu ne kon bu ñëwee ba fii dañoo war a jaayante dem ziare sëñ bi ndax moo moo ñu tax a ñëw fii sëñ Bamba mooy lépp ziar naa la bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf bi maa ngi lay nuyu. jërëjëf ziar baax a baax yaa ngi ci rang naa. waaw waaw waaw métti na mais jar na ko jar na ba muy métti kenn nit rek la woon tey nag ay mbooloo la kon tey lépp lu fay def rek yaakaar naa da koy jéem a dabu rek waaye mënutoo ko dabaat incha allahu rabbi yàlla na yàlla fayal ñu sëñ. jërëjëf jërëjëf loolu am na solo sëñ bi maa ngi lay nuyu borom daaru kase borom daaru kase. wallaahi yow borom daaru kase maa ngi yaa ngi jëm ci barabu sëñ bu mag bi jaayante bi. wallaahi jugee sa gannaaw ba si kanam ba si gannaaw barki yàlla dagguma rang ma ñëw ba si gannaaw pour topp raa bi mën a dem jaajëf jërëjëf. jërëjëf loolu am na solo saa baay maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi nangu siyaar bu wér-wér. jaayante bi ngeen di jaayante pour dem ci bërëb bu sëñ mag bi tàng na bu sedd rek. yëguñ ci dara. bu doon taw bay bay bay bay di bu soobee dañuy dugg siyaar yi bu soobee yàlla. li sëñ bi dajoon dajuñ génn wàll ga sax. kon luñ fi def lu ne rek. dañ ko duñ ko daj duñ ko mës a daj duñ ko mës a àgg fenn. waaye ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax. yàlla ko fekk ay déwén. ndeysaan ndeysaan dañoo war a sonn ñaax ndax sëñ bi dee jaar ne ñu sant bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf Birame biram laa àndaloon biram gis nga ni muy demee ñoo ci ba léegi ñoo ngi ci barabu rang bi nga xam ne moo moo jëm ci barabu sëñ Touba. maa ngi lay maa ngi lay fay fas yéene magal ci garabu sëriñ bi rek ñun ñoom yaa gën a xam ay taalibe sëriñ bàmbalañ lañ sëñ bi lu mu laaj dinañ ko def barki alxuraanu karim. jërëjëf ñoom sëñ bi lu mu laaj dinañ ko def ndax bëgg gi bi ñu bëgg. bëgg gi bëgg sëriñ Bamba moo tax sëriñ bi lu mu laaj dinañ ko def gis nga taalibe yaa ngi ni di jaayante pour jëm ci rang bi ziar Serigne Bamba. taalibe bi maa ngi lay ziar. maa lay ziar wéer a wéer. yéen ngi jaayante boobu ba léegi. ñu koy jaayante gis nga rek di raami nu mu seeree rek. jéego ba tënkee ñëw fii. mbaa loo jaayantewul di nga ko am. incha allah rabbi lépp loo jaayante dina baax rek lépp loo jaayantewul fii si mënoo ko fekk fële lépp loo liggéey fii nii nii nii li war a defar sa suba fii nga koy incha allah am nañu yaakaar wér a wér a wér. Birame noonu lay demee ñun la ak yéen ak Leral TV Leral point net lii lañ leen indiloon gis nga euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Guédang pour dem ci barabu sëriñ bamb waaye gis nga Leral TV nu mu mel ci biir Touba waaye gis nga Leral TV fu muy dugg ak yéen. waaw lépp gars yi waaw. dégg nga nu mu taree moo ñu ko jaral bërëb sëriñ Touba la ñuy dem ci aar waa waaw daf nañ bu Cheikh Ibra def Serigne Fallou def sëriñ Saliou léegi ñuy ram pour dem bërëb sëñ bi rang bi metti na. waaw waaw métti na kam mais Serigne Touba rek Serigne waaw moo ko waral ko waaw waaw moo. bi rang bi dafa tàng dafa métti. waaw bi maa ngi lay nuyu ah maa ngi lay siyaade gis nga euh, biram gaa yaa ngi jaayante waaye homme de tenue yi ñu ngi liggéey liggéey bu doy waar sëñ bi rang bi métti na de. waaw ah. waaw. ok rang bi metti na trop mais euh, euh, du yàgg du yàgg ma ànd ak boobu ba léegi moom it moo ngi Touba di bay waaram boobu ba léegi moo ngi fi nekk di liggéey ci li nga xam ne mooy màggal gi waaye tamit di liggéey ci lépp loo xam si ni information la sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ah, lay fay. taxawaay bi yàgg na walla yàggul. waaw ah, yàgg na metti na kay jaayante bi ngeen di jaayante pour dem ci bërëbu sëñ bi. Ah, bëgg a siyaar rek. waaw bëgg a bi maa ngi lay maa ngi lay yaa ngi jëm ci bërëbu sëñ bu mag bi. waaw maa ngi jëm ci bërëbu sëñ bu mag bi. rangi métti na torop. waaye bamba jar na ko. waaw jar na dangi dangi ba suba. rang bi métti na. waaw métti na trop mais nag jar na ko nag. waaw Serigne Touba rek. incha allah. jërëjëf. jërëjëf tëj fii. ndax rang bi métti na sëñ bi. maa ngi lay nuyu rang bi métti na. waaw ñu ngi leen di fay bu baax a baax waaw ram bi métti nañu mais ñu ngi koy sante yàlla bu baax ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax ku tedd gi moo ñu ko jaral waaw sëñ Touba sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ bi rang bi métti na waaw rang bi métti na lool suba ba léegi ñu ngi fii ñu ngi koy wër waaye nag sëñ bi jar na ko jar na lu ko ëpp ñu ngi sant jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf Biram ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ziar di ñaan lu fi waay ñaan yàlla na ko sunu borom nangu ñun la ak yéen Leral TV Leral point net ma ànd ak biram boobu ba léegi xàddiwul bàyyiwul ah di leen ziar baax a baax mbokk yi dañ leen jox beneen élément ñu ànd ak Leral TV Leral point net lépp lu xew Touba dinañ leen ko jox jërë ngeen jëf.